seytaane rajiim yi bismillaahi rahmaani rahiim sant yàlla jul ci sangu sang yi Seydina Mouhamed sant sunu ñaari waajur sant sunu wasila Cheikhul Khadim di leen nuyu baax di leen ziyaare te di ak mboolem koo xam ne rek yaa ngi jàkkaarloo Waarwi TV tey ji nag ñu ñëw ci bis bu màgg bis boo xam ne macha allah ki koy màggal ah, saa ne at bu jot da koy def waaye nag jamono ji fi réew moo tax mu màggalee ko nii. muy sëriñ Moustapha Gueye nekk bis boo xam ne bisu ñaan la bisu jaamukaayu yàlla la mu ci ñaanal maamam ju baax ja sëñ Mabey Gueye sëñ am satu sëñ Mabey Gueye moomu nag di waajuru sëñ am satu Gueye mi nga xam ne moo meññ sëriñ Moustapha Gueye mi nga xam ne moo waral bis bi gan yi ñu ngi ñëw kilifa yi ñi ngi jóge fu nekk di ñëw ci bis bi di ziyaare kon nag li ñu war ñu dugg ci biir ànd ak sëñ Sané jàngu alxuraan bi jàng ak jàngkat yi fiy jàng ak kilifa yi nga xam ne ñu ngi ñëw ci barab bi yëpp ñu dugg ci biir wan leen ziyaare yi di sàkku saa su ne ñuy ñaan ci bis yàlla di fi jëlee eh, jàngoro ji ban mën a dellu ca nan ko daan defee ndax ren macha allah soppi na ko bu baax a baax a daaw ak ren soppi na ko bu baax a baax te yàlla mi fi mën a jëlee jàngoro ji daal ban delluwaat ci suñuy activité ñu delluwaat ko fa di ñaanal bu baax a baax maam jooju sëñ Mabé Guèye yàlla yokk ay leeral di ñaanal bu baax a baax waajurum bu góor bu tamit sëñ Amsatou Gueye di ñaanal mboolem jullit yëpp nag ak mboolem taalibe yi nga xam ne jiitu nañ di ñaan suñu borom xare na àjjala suñu waajur ak waajuru ku fa nekk kon nag sëñ Saane nag mooy topp ñu dugg biir xool naka la nit ñi ñëwee di ziare si ak ñaan yeeg ñaangum alxuraan bi ألم alxuraan nee na mooy njàngalu alxuraan mii. nee na tayit nee na nit deful lu ko gën a kawe. ci bis bu toll ni bis bii. sëriñ bi nee na ñoo ngi nuyu jànkatu xasida yi. ndax ñoom ñaari kuréel yooyu. ñoo seq bis bi. di sunu boroom. ak yonent ak sëriñ Touba ñoo soq bis bi sëriñ bi nee na ñoo ngi nuyu mbooloo mi ñëpp di ñaanal bu baax sëriñ Mountakha Mbacké yàlla yàggal ko fi lool te mu ànd ak wér bu baax a baax ne di ko jaarale ci seen jëwriñ ju baax ji seen sang bi Cheikh Moustapha Al Karim di ñaan yàlla yàggal ko fi. ba naal yi mu yéenee liggéey sëriñ Mouhamad Mbakke mu defe ko ni mu ko bëggee nee di yëkkati kaddu nee na kaddu gi itam muy kaddu goo xam ne daa bàyyi ko ci Alaaji Sëriñ Mbakke Gueye jaar ci sëriñ Amsatu Gueye jaar ci sëriñ Mabey nee na mu teewal fi mag ñi nga xam ne ñoom la séqal buntu kër bi nee di wax ci kàddu njaboot gépp di wax ni nee na am na ci lool sax nee da koo bàyyi woon ci loxol Serigne Mbaye Guèye nee na jege na Cheikh Moustapha waaye nee na jege gi rek taxut mu bàyyi ko ci loxoom nee na dañuy séq ca bise ca ngàcc kaddu yu mel nii di faam nee na ñu di ko jaarale ci loxoom. waaye ñu ngi seere mbooloo mi ni waaye ñu ngi seere mbooloo mi nii leen. sëriñ Moustapha Guèye. Serigne Moustapha Guèye mii. yal na ko fi yàlla yàggal. nee na yal na ko fi yàlla yàggal. te mu ànd ku wér. te it ndab. te ndab. ñu bari séqee. bu ko ñu bari séqee. kenn ku ne téye sa loxob càmmoñ. kenn ku ne téye sa loxob càmmoñ. def ci sa loxoom sa loxob def ci sa loxob ndeyjoor. day jeex. day jeex. waaye du tuuru. waaye du tuuru. nee na jeex lu ko dul def amut. waaye nag lu dul tuuru nag am na. Cheikh Moustapha Gueye ñi ko séq tey boroomi baatin di ñu ragal yàlla yàlla gërëm leen danoo séq ndab li téye ko kon nee na leen wóor ni luy jeex mën naa ne waaye luy tuuru moom mëntaam Serigne Mbacke Gueye nag mi koy sant nee na mi ngi sant Serigne Moustapha Gueye mii bu baax nee na loolu nee na mat nañ ci seere nee na saa yu ñëwee ca dëkk ba siyaar yi muy def nee na ump ko moom mii dara lu leen ci ump amul nee ndax moom ci ñoom lay jaar nee na donte seeni at tuut na donte sama daraja man mi jot kàddu yi bëriwul ndax ay taalibe rek lan waaye ci ñoom lay jaar jàllale ko ci mboolem kilifa yi jàllale ko ci mboolem kilifa yi waaye tey kilifa yooyu waaye tey kilifa yooyu koo ci joxoon micro koo ci joxoon micro déglu ko ci Serigne Moustapha déglu ko ci Serigne Moustapha da ngay defe ne Serigne Moustapha kii rek la doon sàkkul ngërëmam kon ngërëmi buntu kër Serigne Mabé kon ngërëmi buntu kër Serigne Mabé moom mii Serigne Moustapha Gueye làq na ko nee na kon alhamdulilahi rabbil alamin nee na lu ci des nee na euh, dafa am ñum ko séqal nee ndax comme waajur wu góor am nga waajur wu jigéen soxna Njala Badiane yàlla dogal na ci moom la feeñ Serigne Modou Badiane mii toog nee li tax mu jox ko xatnu bi fànn yu bari laa ko ci fànn yu bari la ko teg. teguma ko rek. nee tegu ko rek. ci mu bokk ak sëriñ Moustapha di. ci mu bokk ak Serigne Moustapha di nijaayam. waaye koo teg ci. waaye da koo teg ci. muy nit ku ragal yàlla. muy nit ku ragal yàlla. ñoo goneendoo ba mu toog fii. nee na ñoo goneendoo ba mu toog fii. waaye mësuma koo xam ci lu yàlla nee na mësu koo xam ci lu yàlla tere. te lu yàlla digle ca la mas di. te lu yàlla digle ca la mas di sax naka jekk. di jàng alxuraan. di jàng alxuraan. di ko jàngale. di jàng xasida. nee na loolu rek lan xam ci moom kon moo tax ñu yëkkati xatma bi jox ko ko mu defee ko nanu ko bëggee waaye waa alxuraan waa alxuraan nee ñoo ngi leen di sant ñoo ngi leen di gërëm ci turu kilifa gi di bàyyi Serigne Mbacke ak Serigne Amsatu muy seen bunt ci Serigne Touba di buntu Serigne Moustapha mii ci Serigne Touba di leen xamal ni. li ngeen fi def lu ko gën a kawe lu ko ëpp kenn mënu ko fee def lu nu fi jàng ci xasida jàng ko fi ci alxuraan yàlla ko soo borom fula ni te dottil ko ña dem yokk seen xéewal ak seen i leer te def ci kaaraange mucc defal ko ñu ne ci kaw suuf nee na alxuraan moom mën na lépp ndax waame la bu tawee baykat yi dañuy defe ni ñoom rek la tawal waaye déedéet ndang ment yi ci suuf maw lu yàgg lekkunu taw nag ñoom ñoo yàlla tawal kon nee noonu rek la alxuraan mel day defar fii defar fa nu jëm nee na ñoo ngi sant bokk yëpp di gërëm bokk yëpp yéen ñii nga xam ne yéen ñoo yor kaddu yi waxtaane muy yéen ñii di communicateur tasaare. muy ñun ñii di communicateur yi président Modou Mbaye Ndiaye toog nii ak Serigne Modou Mbaye Touba. nee sant nañ leen. gërëm nañ leen. seen taxawaay rafet na lool. ndax kat wax dëgg yàlla. alxuraan. nee na bi ko yàlla wàccee ci Muhammad Rasulullahi ba fii nu toog. des koy jàng di ci jariñu. kon boo koy jàng da ngay wax. kon kuy wax lu mel ne alxuraan di ko wax ci bis yu mag yi di ko waxee fu ne bis bii ñëw te nii leen ko daan defee ni ci taxawee taxawaay bii nee na war nañ leen a dooloo cant bu baax sëriñ bi nee ñoo ngi leen di sant ñoo ngi leen di gërëm nee li ci des daa am loo xam ne sëriñ Mbay mii mënu koo wax waaye nag nee na moom mën na ko wax nee na mi ngi seere ci doole Serigne Touba ni Serigne Moustapha mii am na ngërëmul yàlla am na ngërëmul yonent bi am na ngërëmul Serigne Touba am na ngërëmul sëñ Mabey nee na loolu man na ko seere te nee na ko mën a seere ci jataay bi nee na noonu la ko mën a seeree am na ngërëmul Serigne Mbacke Gueye am na ngërëmul sa Amsatu mii di buntam ci Serigne Touba am na ngërëmul Serigne Cheikh. am na ngërëmul sëti sëriñ Mabeye Gueye yëpp ne nit nag bu nit di wax ak baaxam daa war a dale ci bokkam bu fekkee baax ga am na waaye nee na sëriñ Moustapha li muy def ci buntu kër sëriñ Mabeye du lees mën a tudd kon sant ko ak ñaanal ko rek lan mën a def nee ñoo ngi sant sëriñ Modou Gueye àllam mii ndax li ko waral dafee toogal ak bàyyil xadim te Axbaayil Xadim Serigne Moustapha Gueye mii di ca membre di membre bu am solo yàlla dogal mu ñëw ci turu Axbaayil Xadim ñëw ci turu seex Moustapha Al Karim kon sëñ Modou sëriñ bi nee ñoo ngi lay sant ñoo ngi lay gërëm ci sa yaatal ak sa rafetal nee na boo demee nga wax sëriñ bi ni ko sëriñ Mbacke Gueye nee na mi ngi yeesal ak taalibeem di yeesal pas-pasam alalam rekk ne fii nee du nu arrière du nu yokkat du nu dellu ginnaaw fa yéene ànd ak moom rek liggéey Serigne Touba ni ko Serigne bi diglee wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf.